أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi ginnaaw loolu ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 163 164 165 166 ñeenti aaya yu nu sunu boroom di jàngal juróom benn mbir yooyu bi ci njëkk mooy taqrir mabdaul wahyil ilahi ci aay yi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala daf nuy saxalal ne moom am na lu mu wàccee te muy waxam mu tuddee ko al wahyu wahyu lu yàlla tabaraka wa taala di jox ab yonentam mu wàcce ko ci ab yonentam ci source diine yi dafa am ñetti texte benn bi mu ngi tudd alquran benn baa ngi tudd hadisul qudsi beneen baa ngi tudd hadis annabawi su dee bi ñuy tuddee alquran boobu mooy waxu yàlla bu mu wax génne ko moom yàlla wax ko daa di koy jox malaaka bu tudd jibril jibril daa di koy indil yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala daa di koy indil kenn ci yonentam yi loolu mooy wahyu comme niñ ko nar a gisee léegi léegi ci njëlbeenu aay yi nekk suñu kanam kon wax yu waxu yàlla la boo xam ne moom suñu borom subhanahu wa taala moo ko jox ab ndawam pour mu indil ko beneen ndawam moo ko jox malaayika ndawam la mu jox ko yonent ndawam la yàlla ko tànn yónni ko mu des beneen bi beneen bi mooy hadis al qudsi yi kooku waxu yàlla direct la bu mu jox yeneen te amul intermédiaire moom yàlla tabaraka wa taala moo ko dee ndawam loolu di tudd yonent comme ni mu ko deewee yonent bi alayhi salatu salaam mu tudd hadisul qudsi mu des beneen hadis boo mooy boo xam ne yonent moo ko génnee ci gémmiñam daal di koy jottali jaam ñi ñetti sources yi mooy sources yi islaam yi alquran hadisul qudsi ak hadis annabawi alquran nag mooy wax yàlla loolu mooy aaya yi dañuy ñëw di ko saxal ne yàlla tabaraka wa taala wax na waxam tuddee ko wax yu muy alquran ñaareel bi mooy awalu rusul nuux alayhi salaam wa axiruhum muhammad danañ saxal tey ci aaya yi nekk suñu kanam ne yonent bi yàlla tànn yónni ko muy yonent bu njëkk ci jaam ñi nuux la tudd kon soo déggee lii am na lu muy dindi ci sa ginnaaw la muy dindi mooy lan mooy ña saxal ne yonent yàlla aadama mooy première yonent bu yàlla yónni fii loo jàng mooy awalu rusul nuux alayhi salaam wa axiru muhammad njëlbeenu yonent bu yàlla yónni ci jaam ñi mooy yonent yàlla nuux alayhi salaam ki ci mujjee ñëw mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu aaya yi dañoo ñëw di ko saxal ñetteel mooy isbaat sifatu kalaamillah kalaamun lillahi taala ay yi nii jàng tey dafa ñëw di saxal ne melokaanu waxu yàlla ah yàlla day wax de kon yàlla bokk na ci melokaanam yàlla day wax ñun amuñu yàlla ju muuma de waaw ñun amuñu yàlla juy tëju di di génn at bu nekk benn yoon wala muy wax at bu nekk benn yoon ñun sunu borom bi nu gëm day wax waaw waxam mooy alxuraan bii nu tiim mu nekk ci sunu we- sunu kanam léeg-léeg nga dégg ci nit ñi ñu ne yàlla waxul kenn dara du ngeen koy dégg ah yàlla de waxul kenn dara ah kay yàlla kay wax na alxuraan bi waxu kan la du waxam la kon wax na dara kon dafa bokk ci melokaanu yàlla yi mooy yàlla day wax jalla jalaaluhu sunu borom ñeenteel mooy bayaanul xikma fi irsaali rusul mbokk yi lan moo nekk ci xereñ yan secret moo nekk ci yàlla subhanahu wa taala yónni gi mu yónni yónent yi dafa am xikma dafa am lu tax yàlla tànn ay yónent yónni leen ci ñun xikma bi mooy wa hiya qatul xujja ala naasi yowma alqiyama ëllëg kenn du am lay yowma alqiyama kenn du fa nekk naan waaw yow yàlla balaa nga ñuy dóor mbaa nga ñuy mbugal mbaa nga ñuy lakk ak ñoo waroon wax ah yow yàlla ah ah da ngaa waroon wax ne bëgg nga ñu jaamu la soo ñu ko waxoon nag ba pare nag defuñu ko nga doog ñoo wax dara waaye xam nga yow yaa ngi nii waxoo ñu dara ba pare léegi yaa ngi nii nag dajale ñu nag naan dañuy yóbbu safara nag loolu yow mal xiyaam kenn du am layam lu tax kenn du am lay est-ce que yàlla yónni na yónent yi yónent yi leeral nañ wala leeraluñ wax nañ wala waxuñ jàngale nañ wala jàngalewuñ jubanti nañ wala jubanti wuñ bal sax yàlla yamul rek ci yónni yónent yi waaye daf leen joxaale ay téere yuy confirmer di dëggal di wone ne man yàlla maa leen yónni yónent yi yamuñ ci rek ci ñëw waaye dañoo indaale ay lettre lettre boo xam ne day wone ne nun ñii yónent yi yàllaa nu tànn yónni ñu kon loolu mooy hujja yowmal xiyaam kenn amul lay li alla yakuna linnaasi ala allahi hujja ëllëg yowmal qiyaam kenn du am lay yàlla da lay ne kaay taxoon jaamu wama doo fa nekk naa la waaw man xaw moon dam laa war a jaamu doo fa nekk di wax yàlla ne da ngay dégg sax ëllëg waa safara bu ñu duggee safara ndeysaan malaaka bi nekk buntu safara di garde di yéemu ci gaa yi bu gisee mbooloo mi ni ñu baree war a jëm safara ñoom ñëpp moom day joom mi xam nga lu muy wax alam yaatikum nazir yiin yiin xanaa waaraate kat ñëwul woon ndeysaan nga dégg waa safara xaalu bala ah kay wallahi yonent yi ñëwoon nañ xaalu bala dëgg la ñëwoon nañ waaye fa kazzam na nun nu weddi ñu ne du dëgg yàlla waxul dara waaw kon weddi gi nu weddi yonent yi moo nuy dugal safara weddi gi nu weddi yonent yi moo nuy alak kon ndeke yàlla daa yónni yonent yi pour ëllëg kenn du am lay yàlla dafa wàcce téere yi pour ëllëg kenn du am lay lay jeex na ginnaaw yonent yi ak téere yi mbokk yi loolu dañ koy jàng ci aay yi nekk suñu kanam beneen mooy shahadatu rabbi tabaraka wa taala wal malaikatu bi nubuwati xatimi al anbiya wa risalatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla sunu boroom jalla jalaaluhu boroom asamaan ak suuf dafa seede ne moom moo yónni yonent bii di muhammad moom mooy yonent bu mujj ci yonent yi mbokk yi ndax yàlla rek doyoon na seede bi yàlla lu mu seede doy na wala doyul bal malaayika yi dañoo ñëw di seede ne yenent bi muhammad yàllaa ko yónni moo tëj bunt bi amul beneen yenent buy ñëw jeex na de loolu yëpp alxuraan jàngale na ko alxuraan jànge na ne jàngale na ne waxyu am na alxuraan jàngale na yàlla day wax alxuraan jàngale na yonent yi yàllaa leen di yónni yàlla moo leen yónni téere yi yàllaa ko wàcc alxuraan jàngale na ne yàlla mi yónni yonent bi dafa seede ne moom yàlla ak malaaka yi ne yonent yàlla muhammad yàllaa ko yónni mooy yonent bu mujj bu ñëw kon yéen waa Sénégal bu ngeen déggee am na beneen yonent bu ngeen am su ngeen di dëggal su ngeen déggee keneen feeñaat fi ginnaaw yonent bi ne man yonent laa yàllaa ma yónni bu ngeen koy wax ah tey am na ku ma seetaan ci Facebook bi mu naan man maay Ousmane Ibn Affan tey ci Facebook bi mook Tunkara mu ne ko yaay Ousmane Ibn Affan mu ne waaw yaay Ousmane Ibn Affan mu ne waaw yaay Ousmane Ibn Affan mu ne waaw mu ne ko ndax yow mos ngaa seeti psychologue mu ne ko waaw mus naa seeti psychologue kay dem naa dalal xel dem naa fan tunkara dagg affaire bi te looloy wóor waaw kooku moom de yàlla naay mbokkam jóg non ci gis nga euh, non Sénégal Sénégal moo garaaw seetaan naa encore tey ci Facebook bi benn waaye bu ne lawhul mahfuz moom lañ ko dénk xam ngeen lawhul mahfuz xam ngeen lawhul mahfuz moom dafa di ma sax al lawhu al mahfuz lan mooy mahfuz ah mais Sénégal ngay dégg n'importe qui ku nekk lu neex nga wax ci diine bi non benn waaye nee na Sénégal bu ngeen ëppoon 15 millions ñun bu ngeen nekkoon milliard comme chinois yi kon da ngeen di détruire monde bi mu dox na dëgg Sénégalais yi bu ñu amoon bu ñu nekkoon 20 millions rek danañ détruire adduna bi la illa mais ak ñoo dëgër fit wala ki ñu mel ne man maay Ousmane Ibn Affan Ousmane man la maay Zou Noureyni maa dikkaat mu ne Macky Sall mooy xaw ma kan am na benn waaye bu mu wax de nee na mooy Macky Sall xoolal loolu rek ñeneen ñi dee ñooy ñëwaat dal ngeen dégg ñu naan wahdatul wujub waaye boo ko tegoon ci xam-xam sax mais am na ñoo xam dañuy màndi ba pare dem télé dañuy tux yàmbaa ba ne taat egg si télé di gis ay étoile waaw ne gis na yàlla man rañaan na say rañaan ñaata fan la mu ne ay minutes cinq minutes laa rañaan ci sama kaw la la sama kaw la la ma yàlla jële yóbbu ma kaw asamaan ma ñëwaat ndeysaan ku ci bàyyul yàmbaa bi lu ne di nga ko wax billaay yàmbaa bi ku ko ci bàyyiwul di nga xëy ne maa yàlla yeneen yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yeneen yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko juróom benneel mbokk yi ci li ñu war a jàng tey mooy maa xawal quran min tashri alquran dafa ëmb ay atte alquran bi ñëwul rek nekk téere bu ñu war a barkeelu téere bu ñu war a sangoo téere bu ñu war a naan téere bu ñu war a diwoo téere bu ñu war a raay bal alquran dafa ñëw ëmb ay atte at tashri wa ma dammahu bayna daftayhi min maarif wa ulum ak li nga xam ne daf ko ëmb ci yeneen xam-xam yoo xam ne ci xam-xamu adduna la yàlla di ñu ko jàngal moo tax borom xam-xam yi ne la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wala al maarifa illa bil quran kenn du mun a am pas-pas wér lu nga am xel kenn du mun a am xel lu nga am xam-xam kenn du mun a am xam-xam du nga xam alquran alquran bu leen yaakaar ne téere barkeelu la alquran téere xam-xam la te mboolem technologie yi soo ubbee alquran fekk ko ci te alxuraan bi li mu wax lépp dangay fekk ne loolu mooy li am kon du téere rek boo xam ne téere sharia la yem fa pour nit ñi yaakaar ne dafa ñëw julli woor joxe azaka jeex na déedéet dangay dugg ci alxuraan fekk li yàlla di jàngale liir nu muy dundee ci biir néeg ci biir yaayam nu mu fay dundee nu mu fay juddoowee nga jàng gis géej gi li ci yàlla di wax nga jàng gis montagne li ci yàlla di wax nga jàng gis taw bi li ci yàlla di wax nga jàng gis asamaan li ci yàlla di wax nga jàng gis suuf si li ci yàlla di wax hatta sa bopp yàlla mu ne wa fi anfusikum afala tubsirun yow sax sa bopp rek benn waaye di ma jàngal da barki démb mu ne xoolal même yaramu doomu aadama rek li ciy ñaar yi ci nekk deux yi ci nekk deux yëpp a tolloo bépp bu ci nekk benn ci digg bi la nekk parti bu nekk ëppale wu ci moroomam yi ci biti kuy weddi bët yi fu mu nekk nga tolloo ñaari paxu bakkan yi fi ñu nekk parti gémmiñ yi fi ñu nekk soo daggoon nit nga xaaj ko ci digg bi dina am côté bu am sikkim am côté bu am sikkim wala am côté bu am bët am côté bu am bët jumba fan la nekk milieu sexe bi fu mu nekk milieu ñaari sexe yi fi ñu nekk bi ci kaw ak buy suuf milieu li ciy benn yàlla ci digg bi la ko def allahu akbar wala ah kenn weddi wute yàlla ngoog mooy ngand mi yàlla nee na même seen bopp bu ngeen xoolee seen bopp sax xam ne maay yàlla kon sunu borom a ngoog kon alxuraan dafa ëmb ay loi ay atte tëmb xam-xam mu ne ba pare ñëw nag di seede ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla ko yónni mooy yonent bi mujj ci yonent yàlla yi kon lii mbokk yi ci tënk bu gàtt lii mooy li nu war a jël tey dars mu ëmb ñeenti aaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله هجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد ما بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سن برم ne inna man yàlla jalla jalaaluhu bu ko neexee mu ne inni bu ko neexee mu ne inna bu mu ci wax rek yelloo na ko moom jalla jalaalu sunu boroom ndax màggaayam bu ko neexee mu ne inna moom moo màgg tol noonu aw xayna man yàlla maa wahyu maa di al wahyu al i'laam mooy informé at tashri al xafi mooy ay luwaa yu mu wàcce jox ko yonent bi yonent bi war ñu koo jottali wa wahyullahi tabaraka wa taala ila anbiyaihi ilaamuhum bima yuridu an yuallimuu bihi min umuri ddin wa gayrihi mbokk yi wahyu mooy ay xabaar ay information yoo xam ne yàlla sunu boroom jalla jalaaluhu dafa bëgg nun nu dundee ko mu jox ko yonent bi pour yonent bi indil nu ko ndeke sharia lan la du lenn lu dul aw dundin wu yàlla bëgg nu dund mu jox ko yonent ne ko yonent jàpp jottalil ma jaami ne leen lii laa bëgg nu dundee léegi nag jullit bi ne man sharia sama yoon nekk ci est-ce que fas yéene ngaa dund lu leer kon da ngaa naral nekk ci mboy mboy gi ci àll bi ba alku rek dee dem safara ndax yow da ngaa war a dund ci leer li yuhlika man halaka am bayna wa yaxya man xayya yàlla nee na kuy dund da ngaa war a dund ci lu leer kuy dee nga dee ci lu leer léegi nag boo nee man leer googu yàlla wàcce sama yoon nekk ci loo nar a dund ci lëndëm nga nar a nekk ba dee rek dem safara kon loolu mooy wax yu wax yu mooy lu nu sunu borom subhaanahu wa taala indil xamal ko yonent yi pour yonent yi xamal nu ko ci sunu mbirum diine loolu mooy wax yi mooy sharia kon suñ fi bàyyee sharia wallahi dañuy alku àdduna alku àllaaxira suñ fi bàyyee sharia mooy duñ xam nu ñuy takke sëy yi looloo tax tey nga gis gars yi benn waay bu dajale ay xale jigéen rek daan ne yaa sàmba yaa sàmba yaa sàmba bañ mat fukki yoon mu ne sëy bi dagan na dem leen sëy képp ku ñu takk sa sëy te takk wuñ ko ci sharia sëy boobu sëyu njaaloo la bu yeba mu leer ni bu baax dafa am ci sëy ci sharia lu ñuy tuddee arkaanu nikah ku ko bàyyi bëgg yu yomb yi bëgg dugg ci ñi nga xam ne xamuñu dara ci sharia wala di leen gëmloo ne sharia du dara wala di leen gëmloo ne am na lu gën a rëy sharia wallahi mbokk yi ba ngeen bàyyi ko ngeen topp loolu su ngeen dee da ngeen dem safara ndax yàlla gisoon na fi ñooñu yónniwu leen ñooñu indi leen loolu ñooñu wax leen loolu yàlla gisoon na leen fi xamoon na leen yàlla xamoon na ne ñii bu ma leen yónnee dañuy falsifier sama yëf moo tax waxu leen dara mu tànn yonent yàlla Muhammad wala da ngeen maa bëgg a weddi ne yàlla bi muy wax yonent bi xamuloon ñooñu ñu ngi fi waaye doyuñu yàlla est ce que xam ngeen ñun ñi tax yàlla defu nu yonent man ak yéen ñi toog fii xam ngeen tax yàlla defu nu yonent wóolu wunu munu yàlla wóolu wunu ñun ñi toog fii ñu dinañ defay yonent waaye yàlla dafa tànn xeet wi allahu akbar mu fekk yonent yi ñoo gën mu tànn leen def leen ay yonent ginnaaw yonent yi mu tànnaat mu fekk sahaaba yee gën mu boole leen ak yonent yàlla muhammad moo tax ngeen dégg yonent bi ne maa wataatil ard baada al anbiya xayrun min abi bakr ngeen dégg yonent bi ne xayrun naasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ila axiri li gën ci xeet bi mooy sama xeet man yonent waaye gis ngeen tey li ngeen gis ci ci dëkk bi mooy sànni sharia jël ay leneen façon julli façon jaamu yàlla façon koor façon façon façon te yëpp dafa wuuteeg sharia te lépp lu wuuteeg sharia ci islam loolu daganul lépp lu ci wuuteeg sharia lu sharia ne nii lañ koy defee yow nga defee ko neneen perte nga yonent bi nee na man amila am- amalan laysa alayhi amruna wa huwa radd wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu ba pare aaya bi dafa wàcc ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum wa radaytu lakum al islaama alquran wàcc ne wa man yabtaxi gayra al islaama diinan ah mu ngoog kon leer na nañu mbokk yi yal na yàlla jubal inna man yàlla aw xay naa maa wahyu ilayka ci yow muhammad gis nga joxoñ bi fan la jëm ci muhammad inna aw xay naa ilayk man yàlla maa la dee maa wahyu ci yow kama aw xay naa naka ma wahyoo woon naka ma deeyoo woon ila nuuhin jëm ci nuux ah li moo tax borom xam-xam yi ne nuux mooy awwalu rusul luy seen dalil aaya baa ngi nii waaye est ce que dafa tekki ne aadama du yonent est ce que dafa tekki ne siis du yonent est ce que dafa tekki ne idris du yonent déedéet nuux mooy premier yonent bu xeex bokkaale ndax Adama bokkaale amul woon comme lii am nii amul woon siis amul woon bokkaale jamono nuux la yàlla gis nit ñi di bokkaale yàlla def ko première yonent bu xeex bokkaale kon nuux mooy njëlbeenub yonent bu yàlla yónni bu war a ñëw xeex bokkaale ci kaw suuf jàngeen ko yàlla sax saar la ko utal suratu qaala ya qawmi ibudullaha jaamu leen yàlla bàyyi leen bokkaale yi ba mu demee ba gaa yi lànk sax ci seen bokkaale guddi ak bëccëg woote réunion ñëpp assemblée générale ñëpp ñëw toog ñu ne laa tazaruna alihatakum bu leen bàyyi yàlla yi ngay ñu gaa yi yàgg nañoo dëgër bopp de gis nga ñii li ñuy wax dañuy sóob bu leen bàyyi seen yàlla yi moo tax démb dafa nuroog tey yemuñ ci ne gars yi bu leen bàyyi yàlla yi waaye dañoo tudd tur yi laa tazarun na ah alihatakum kan la waddan wa suwaan wa yaxuus wa yauq wa nasr bu leen leen bàyyi de ah nu nekk ci di woote di woote di woote ba mu xam ne mbir mi du dem mu tàllal yàlla ay loxoom ne ko yàlla sonn na alf sana illa xamsina aman juróom fukki at yu manqué tuuti nuux di woote ci tawxiid munta am benn nit yàlla mu ne dara gëmul nuux lu dul benn kër benn kër kon ñooñu dëgër nañ bopp de mu daal di tàllal yàlla loxo ne ko laa tazar bu leen yow yàlla rabbi laa tazar alal ard min al kaafirina day yaaram yàlla bul fi bàyyi benn kër yéeféer yi bul fi bàyyi seen benn kër ñëpp alak leen boo leen fi bàyyi sax yu dilli ibaadak yamuñu de mu ne wala yaliduna illa fajiran kafara te sax gis nga ñi waxuma la ay yéeféer waaye boo leen bàyyi sax ay bandi la ñuy jur kàccoor yéeféer encore reyal ñëpp waaw nu mun na ñaan de moo tax yowmal xiyaam ndeysaan bi gaa yi sonnee daw ñëw ci moom mu ne leen man taluma leen maa ne woon rabbi laa tazar alal ard min al kaafirina dayyaara loolu laa tal ndeysaan wala yonent bi bu muy misaal nit ñi mu ne nit ñi ndeysaan ay ay nature lañ am na ñu mel ne Nuux am na ñu mel ne Isa mu ne Aboubacar moom ndeysaan mu ngi mel ne Isa mu ne Umar nag yow yaa ngi mel ne nuux yow waaw noonu la de nit ñi noonu lañ mel am ñoo xam dañoo tàng am ñu sedd waaw jeex na kon sunu borom nee na yow Muhammad maa la dee maa wax maa wax ak yow comme ni ma waxee woon ak nuu du ñooñu rek de wan nabiyiina min baadi ak yeneen yonent yi ñëw ginnaawam ñoom tamit maa wax ak ñoom waaw waaw yeneen yonent yu ñëw ginnaaw yonent yàlla Muhammad nuux ñooñ tamit yàlla nee na man maa wax ak ñoom wa awxaynaa man yàlla maa wax yu woon ila ibrahima ci ibrahim wa ismail ak doomam wa ishaq doomu doomu déedéet doomu ibrahim ishaq ak ismail kan moo leen jur ibrahim lan lañ bokkul yaay lañ bokkul waaye ñoo bokk ñoo bokk baay ah ok wa yaqub doomu ishaq yaqub mooy doomu ishaq yaqub mu ngi woon dëkk bu tudd faddaan aran papaam mu ngi woon dëkk bu tudd kanaan bi papa yi nekkee ci sukuraat woolu ko moom yaqub mu war a jógee faddaan aran dem kanaan balaa mu yegg si la fekk papa ji gaañu ba ñu denc moom papa ji bokk nañ jamono Ibrahima mooy seen pap Ibrahima mooy papaay Ismaïl mooy papaay Ishaq Ishaq moo jur Yaqub Yaqub wal asbaat moo jur sët yi al asbaat mooy awlaadu Yaqub doomi Yaqub yi ñaata lañ ah ah fukki yi ñoo bokk ndey ak baay ñaar yi ñoo bokk ndey ak baay ñaar ñi kan ak kan la Yusuf ak Binyamin seen yaay mu ngi tudd Rahil ma xalaat da ngeen daw xisasul anbiya moo tax du ngeen kii gis ngeen kii du daw moo tax moom rek mooy tontu yéen ñi toog yëpp genn waa gi da ngeen daw xisasul anbiya bàyyi leen daw darsi yi mercredi bàyyi leen daw gis ngeen saa yi ma waxee histoire yi rek kii mooy tontu parce que fekkee na ko gars yi bàyyi leen daw waay gars yi bàyyi leen daw waay wal asbaat ak sët yi sët yi mooy doomi yaqub yi alayhi salaam ndeysaan mu ne wa isa ak isa bnu maryam wa ayub wa yunus wa haarun wa suleyman ñu ñëpp ay yonent lañ yoo xam ne yàlla daf leen a wax yu dafa wax ak ñoom wa aatayna daawud zabura yonent boobu tudd daawud man yàlla maa ko jox téere bu tudd zabour daawuda moom mooy doomu mooy baayu mooy baayu suleyman daawud jàng ngeen histoire am moom moo rey wa qatala daawud jaalut mu ngoog gis ngeen ñi ñëpp ay yonent lañ yoo xam ne yàlla moo leen tànn yónni leen nombre yonent yi ñaata lañ mu ne wa rusulan ak ay yonent yoo xam ne ay ndaw qad qasasnaahum alayka déenaa la ko wax naa la diw diw diw diw diw ñi ñëpp ay yonent lañ ñoom ñaata lañ ñi yàlla wax yonent bi alquran ci alquran ñaata lañ 25 25 wa rusulan ay ndaw yoo xam ne qad qasasnaahum alayka nettali naa la leen wax naa la leen seen histoire soo ñëwee ci alxuraan nga fekk fa ñaar fukki yonent ak juróom yu yàlla dee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam allahu akbar min qablik ñu la fi jiitu woon mu ne wa rusulan am na yeneen yonent de lam naqsushum alayka déewuma la ko waxuma leen ñoo ñooy ñan boo leen boolee ñoom ñëpp seen lim mu nekk 124000 lañu am na ci ñu yàlla wax yonent bi am na ci ñu yàlla waxul yonent bi waaye nombre bi ci hadis yi 124000 lañu mu ne wa kallama allahu muusa takliman man yàlla wax naa ak yonent bu tudd muusa ak wax waaw loolu jàng ngeen ko ci xissatu tuuru siina muusa ba muy dox ba seen safara si fekk mu ngi réer mu ne soxna si ak mbooloo mi mu àndaloon imkusu inni raaytu naaran toog leen fii gis naa safara bàyyi leen ma dem foofu ma wut fa xal wala ma fekk fa nit mu orienté ñu bu mu ñëwee ba jege safara si lan la ko yàlla wax yaa Muusa inni ana allah yow Muusa maa yàlla yàlla daal di wax ak moom ndeysaan waaw waaw Muusa Muusa am na grade de ku yàlla waxal fa kallama allahu Muusa takliman yàlla wax na ak Muusa ak wax Muusa yemul rek ci daraja bi yàlla wax ak moom waaye xam ngeen ne Muusa bokk na ci ulul azmi min ar-rusul Muusa bokk na ci grade yi mu takk bokk na ci asamaan yi mu jël ci position yi asamaan yi asamaan yi ñaata lañ juróom-ñaar Muusa fan la fa nekke mu ngoog ba pare gis ngeen yonent yàlla Muhammad alayhi salaam bi muy rañaan day ñëw di delluwaat ci Moussa day ñëw ci Moussa Moussa di waxtaan ak moom delluwaatal ci ci mbirum julli yàlla mu ne ko rusulan ay ndaw yoo xam ne mubashiriin dañoo ñëw di bégalaat wa munziriin ak di xuppaate gis ngeen mission yonent yi ñaar kese la al al inzaar wal bishaara dañoo ñëw di bégale ku jaamu yàlla bu dee dem aljanna dañoo ñëw di xuppe ah ku mooy yàlla nag boo moytul boo dee da ngay dem safara waaw mubashirin di bégal nit ñi jaamu leen yàlla bàyyi leen caaxaan bàyyi leen font rusulan ay yonant yoo xam ne yàllaa leen tànnal boppam ay ndaw yàllaa leen baaxal tàggat leen yar leen ba pare yónni leen ci nit ñi ñu nekk ñoo xam ne mubashirin dañuy bégale ñoom ñëwuñu di wax ci seeni mbiri bopp waaw yonent yooyu amul kenn ku ci ñëw daan ne gis ngeen man xam ngeen damaa jege yàlla quoi yàlla sama gaañ la nga xam ne garaawul quoi bu ngeen ma régleel problème bi rek amul problème quoi dinaa wax ak yàlla mu bal sax gis ngeen yonent yàlla Muhammad yàlla bi mu koy xupp ci alquran yàlla mu ne walaw taqawwala alayna baada al aqawil la axasna minhu bil yamin yàlla nee na muhammad alayhi salaatu wasalaam li ngay màgg-màgg sama wax ji ma la jox boo ci changé woon benn virgule di laa ne ne zëcc ak sama loxo ndey joor bi ba pare dagg sa put kan la yàlla di waxal muhammad alayhi salaatu wasalaam kon keneen nag ba pare yàlla ne ko encore yaa ayyuha rusul balligh bi ma unzila ilayk fa in lam tafal fa ma ballagta risalat allah moo tax nit ñi ñàkk a jàng alxuraan ci ñoom musiba la Sénégal li leen niil musiba bi yëpp mooy ñàkk a jàng alxuraan xam nga lu tax jànguñu alxuraan dañ ko def téere barkeelu ah bal sax ñenn ñi dañu ne ràkkal la ràkkal a taarifuna ràkkal a taarifuna ràkkal ayyuhal ahbab maa maana ràkkal a taarifuna ràkkal aɗa andi saaño aɗa andi gawri so so sottama saño ko ɓe mbi alquran ko saño gawri ndi ittama gayi buñ neñu alquran rakkal la mooy alquran coxla cox dugub ji dindi nañ ko coxa fi des est ce que loolu xel nangu na ko ak kéeféer weesuwul nga gëm ne alquran rakkal la kéeféer weesuwul loolu léegi nag boo gëmee ne lii rakkal la ndax di nga ko jàng ndax di nga ko dund ndax di nga ko jëriñoo ndax lu mu wax doo ko def doo ko def loolu mooy wax bi doo ko mus a def yal nañu yàlla musal ci wax jooju borom bi nee na ay yonent yoo xam ne mubashirin wa munzirin li allaa yakuna linnaasi ala allahi hujja ndax ëllëg yowmal xiyaam jaami yàlla yi nit ñi duñu am lay ci kaw yàlla lay gi mooy lan yow yàlla kat ñun xamunu woon ne dan laa war a jaamu ba pare tey nga dajale ñu bugg ñoo lakk waaw yan preuve nga am yow yàlla sunu kaw bane bane bane ñun jaamuwun la woon yow yàlla lu tax nga bugg noo lakk te yónnee woonu ndaw waxoo kenn li nga bëgg ah xanaa 124000 de doy na wala ëpp na yàlla yemul ci loolu de bal dafa ne wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet bu mu sëni cëpp ci suuf si loolu yàlla yónnee na leen yónent yemul ci loolu de mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin an ibudullah wajtanibu taaxut ba pare mu wax yonent yooyu lan mooy seen mbir rusulan mubassirin wa munzirin ah dëgg-dëgg 124 mille yonent doy nañ de doy nañ yenn saa yàlla yónni yonent ci benn jamono benn dëkk nit ñi weddi ko yàlla yónniwaat keneen ba ñu nekk ñett di dimbalante ci benn place duñ ci mun dara jàng leen yaasin jàng leen suratu yaasin di nga fekk ay yonent yoo xam ne xoolal yàlla day def renfort renfort ndeysaan xoolal Moussa ak Haroun ndax Firawna nu mu kàccooree yàlla renforcer Moussa ak Haroun mais terewul weddi rek nit ñi loolu mooy nature bi ñu gëm weddi weddi te li ñuy weddi amuñ ci benn xam-xam waaw weddi surtout weddi nag yonent yàlla yi sunu borom ne ndaw yooyu maa leen yónni ñuy waaraate ak bégale di xuppaate ndax nit ñi ëllëg du ñu mën a am lay ci kaw yàlla baada rusuli ginnaaw yonent yi nit ñi ti ëllëg bu leen yàlla dajalee ba nit ñi bëgg a weddi rek yàlla ñan lay woo yonent yi daa ngeen ci suratu muzammil yàlla ne inna awxay inna arsalna inna arsalna ilayka kama arsalna ila firawna rasulan man yàlla maa la yónni nga nekk ndaw comme ni ma yónnee ci firawna ndaw waaye fa asa firawna rasul fa axaznaahu axzan yàlla wax na ci alquran ne ëllëg li yakunu rasulu aleykum yéen da ngeen di seede yeneen ndaw yi yeneen nit ñi yàlla indi yonent bi mu seede leen ëllëg yowmal xiyaam bu yàlla dekkilee jaam ñëpp day indi nit ñi nit ñi commencé weddi waaw yàlla yónni woon benn yonent yàlla du woo yonent yi de ummam ummatu muhammad la ñuy woo yéen xeetu muhammad kaay leen ngeen seede bi yonent yi ñëwee ne yéen ñun lañu yónni woon ci yéen nit ñi ne yónni wuñ leen xam nga am na am na différence yonent yi nee na ñun lañu yónni woon nit ñi ne yónni wuñ leen woon lan mooy leeral loolu yàlla day woo xeetu muhammad xeetu muhammad kaay leen ngeen seede diggante yonent yi ak nit ña xeetu muhammad daal di ñëw ne waaw ñu ne dañuy seede ne yàlla yónni woon na ay yonent ci yéen nit ñi ne leen fa ngeen ko xame yéen a sob ñëw suñu ginnaaw bëgg a seede ñu ne waaw ñun xamoon nañ ko ci téere bu ñu yàlla joxoon mu tudd alquran yàlla waxoon na ne xeet yëpp yónni woon na ci ndaw parce que tey ñoo ngi nii di ko jàng xeet yëpp yàlla yónni na leen ndaw amul xeet bu mës a nekk ci kaw suuf lu dul ne borom bi tabaraka wa taala yónni na leen ndaw wu leen waar mbokk yi sunu borom ne wa kaana allahu yàlla masta dañ azizan di not ci nguuram hakiman di ko xereñ moom yàlla tabaraka wa taala allahu akbar wa kaana allahu azizan hakima gis ngeen lii mbirum werante la mbirum xuloo mbirum dàggasante mbirum wax dëgg wax ëllëg dëgg gi fan lay féete moo tax gis nga loolu yëpp pour mu bañ a am yàlla faram fànce ko leeral ko ba ëllëg nit day muuma du mun a wax dara moo tax wa kaana allahu azizan hakim tëj na bunt bi amatoo foo daw jëm kon ki def loolu ba mënoo rëcc aziz hakim mu ne laakin allah waaye yàlla moom yashhadu mooy seede bi ma anzala ilayka lii mu wàcce ci yow moom yàlla moo koy seedeel boppam lii rek doyoon na lii rek doyoon na ci taranga bu yonent yàlla muhammad am yàlla muhammad ñëw ne yàlla ma yónni nit ñi ne ko yàlla wónni yónniwu la yàlla ne man doy naa ci seede ne maa ko yónni li ma wàcce ci moom dëgg la doy na te bii du bii du njëlbeenu aaya bu yàlla wax lool de jàngeen yàlla mu ne wa kafa billahi shahida gis ngeen li doy na rek jàngeen yàlla mu ne shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist doy na wala chaque jour nit ñi bu ñuy weddi yàlla mooy wet saxal yonent bi ne yaa ko maa ko maa ko yónni yàlla wax na ci alquran yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum ni ngeen xamee seen doom yi ne dëgg la yéen a ko jur muhammad ngeen gën a xam ne dëgg la yàllaa ko yónni waaye da ngeen a lànk kon mbokk jullit yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ndam bi mu am ku ñuul ak ku weex ku njëkk ak ku mujj kenn du ko am alkane nag weesu nit ñi réere muhammad ba koy tëkkale keneen wala ñeneen alkande weesul lool te tey léegi looloo xew waaw boo duggee ci internet bi gis wootekat yu bees yi yi yi juddu ñoom ñëpp yonent yàlla muhammad la ñuy diir mbagg waaw wootekat yu bees yi juddu yi ku nekk di wax dugal ci facebook beeg youtube di diir yonent yàlla muhammad mbagg te bu doon ci dëkku lislaam yi ñooñu dañ leen di rey bu yàgg dañ leen di dagg seen baar yi la ñuy def waaw ndeysaan dal nañ yàlla jubal laakinillah waaye yàlla jalla jalaaluhu sunu boroom yashhadu mooy seede bima anzala ilayka ci li mu wàcce ci yow lan la yàlla wàcce ci muhammad mu ne anzalahu wàcce na ko bi ilmihi ci xam-xamam moom yàlla la ko wàccee allahu akbar ci xam-xamam moom yàlla la wàccee téere bi ci yow moo tax téere bi nekk téere xam-xam ndax ki ko wàcce boroom xam-xam la wal malaikatu malaaka yi yashhaduun danañ seede loolu hmm hatta malaaka yi dañuy seede ne yàlla jalla jalaaluhu moo wàcce téere bii di alquran ci yonent bi allahu akbar waaw ku yàlla seede malaaka yi seede ko su ko nit weddee ndax dina am njëriñ ku yàlla seede malaaka yi seede ko bu ko jinne yi weddee ndax dina am njëriñ dootul am benn sens waaw moo tax défendre yonent bi sax di ko défendre sax dëgg-dëgg xanaa lu mënta ñàkk la rek waaye jaru ko sax de ndax yàlla défendre na ko ba pare waaw benn yoo xam ngeen yoo xam ngeen yoo yoo bi dafa tag ci garabu guy gi ci suba la fi tag ngoon jot muy naaw mu ne guy maa ngi waaj a départ de sa reen yi samp ko ci suuf jàppandul bu dëgër ci suuf si balaa may départ ngay daanu guy gi ne ko bi ngay tag yëguma ko woon de bi ngay tag sama kaw yëguma ko woon sax nag ah fii nga yendu man de yëguma ko sax loolu mooy nitu tey yi waaw bëgg la ngaamu ci yonent yàlla Muhammad pour siiw am na ñoo xam nag dañoo bëgg siiwoon ndax boo waxee dara ci yonent yàlla Muhammad lu jaaduwul rek da ngay siiw ndax ñëpp lay dégg daal waaye yéen dégg ngeen ci li mu wax ah ngaam ndam nag gars yi commencé di tudd sa tur moo tax de loolu rek moo tax gars yi di ko war waaye ñoo la gën a xam dëgg gi ah moo tax yàlla mu ne wa kafa billahi shahida yàlla rek rek ci boppam doy na muy seede ne muhammad moo ko tànn moo ko yónni moo ko def yonent bu mujj ci xeet wi keneen dootul ñëw ginnaawam yàllaa ko tànn wàcce ci moom alquran loolu rek doy na même malaaka yi bu ñu ko seedal woon sax wa kafa billahi shahida jeex na waaw benn bis yàlla dana woon jibril peeseel muhammad jibril ne yàlla ñaar laa koy peese mu ne ko peese ko juróomi nit jibril jël juróomi nit teg ci balance jël yonent yàlla muhammad teg ci balance mu peese mu peese leen mu fekk yonent yàlla muhammad moo leen gën a diis mu ne yàlla ah kii de sawaay moo leen raw mu ne ko peese ko bi ashara mu ne wa wazantuhu bi ashara farajaha bihim mu ne zinhu bi ishrin peese ko ci ñaar fukk mu peese ko farajaha bihim mu daaneel leen mu ne ko jibril noppal sa bopp buñ ko peese woon asamaan ak suuf la rajaha bihim muhammada du seen morom billahi wallahi taala ah seen morom de raw na leen bu yàgg wallaay loolu gaa yi naan doo seen morom wallaay dëgg la bilaay du seen morom muhammad du moromu kenn wallahi du moromu kenn moo tax yowmal xiyaam moom la ñuy jox caabi ji allaaxira moom mooy njëkk a dekki wala am na ku koy njëkk a dekki moom la ñuy njëkk a sol- solal yére te moom dong nag mooy sol yére amul keneen kuy sol yére yowmal xiyaam ku dul Muhammad xanaa moog Ibrahim ñeneen ñëpp dong yàllaa ko wax waxuma ko de laa tax faa minkum xaafiya dara du nëbbu ndeysaan yàllaay toog ba mu neex ko mu ne jibril demal ngay indil ma muhammad jibril wàcc xamul fu bàmmeel bi nekk ndax suuf sépp maase na mu dellu ci borom bi yàlla gisuma ko de mu ne ko dellul soo demee di nga gis ñaari làmp néon yu weex tal tiim bàmmeel bi mu ñëw seen ñaari làmp yi di leer allahu akbar projecteur yi leer weex taal mu ñëw fëgg digg bi koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ yonent yàlla na Muhammad ne kokkal la mu ne ko Jibril lu xew mu ne ko ñëwal wuy sa borom mu ne tëll génn ci suuf si sikkim bi taq suuf fii cat Jibril faxas ko ne ko nii suuf si di wadd allahu akbar kaay wuy sa borom yowmal xiyaam jot na keroog yowmal xiyaam bu nit ñi sonnee ci kan la ñuy dem dem nañ ci Nuux ndax mën na ci dara mu ne dem leen ci Ibrahim ñu dem ndax mën na ci dara dem leen ci Moussa ñu dem ndax mën na ci dara ñu dem ci Isa ndax mën na ci dara mu ne leen dem leen ci Muhammad bi gaa yi ñëwee ci moom ne ko sawaay son nañ de mu ne xaar leen ma ñëw allahu akbar xaar leen ma ñëw la wax mu ñëw ci kanam yàlla daal di sujjóot yàlla mu ne ko irfa raasaka wasal wasal tuta wasfa tusaffa sigil yëkkati sa bopp lu xew waxal ñu déglu la laajal ñu jox la soo rammoo ñu jox la kooku Muhammad dong moo ko am kon mbokk yi loolu mooy dar si tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu